jamono yi weesu ñu ngi nemmeeku armée wu Sénégal ñoo ngi amal foofe ci Casamance liggéey bu am solo te sax nag ñu nemmeeku ni ñëpp jot nañ si ndaxte boo xoolee ci fukki fan ak ñett ci weeru mars bi weesu atum 2022 ñëpp tegoon nañu seen gët ci jaloore yooyu ñu amal foofu waaye nag lu ni mel tamit taxul mu am ay njuuxumtu ci suuf ndaxte soo xoolee jàmbaar yooyu ñoo ngi ñaawlu ñàkk teewaayu général Cheikh Wade bu chef d'état-major des armées ci seen i wet ndax nag ginnaaw ñetti weer bi ñu nemmeekoon yi ñoom kat ñoo ngi si terrain bi di liggéey ngir nag jëlee fa way fipp yooyu di waa MFDC ba léegi daal amul ku teew jaajëfal leen ba tey si Dakar Actu ñu nag loolee wute nag li fi daan am bu yàgg ndaxte saa su daan am opération yu nu mel daan nañu gis nag seen njiit nekk seen wet jaajëfal leen te sax loolu dina am lu muy def si ñoom moo waral tamit ñenn si ñoom jaxle ba tey si Dakar Actu nee na kat lu nu mel sax jot nañ si laaj ñenn seeni xalaat ñu doon ay spécialiste waane gis nañu ni ñàkk teewaayu kilifa yi l'armée bi seen wet jaaxal na leen ñetti weer nag mi ngi nii boobu ba léegi ñoo ngi góor góorgóorlu foofu def lu nu mën ngir jële fi way fipp yi du général du commandant militaire zone 5 du kenn ku ñëw foofu noonu seen wet mu mel ni daal yooyee daal am na jiixi jaaxal si ñenn seeni xel ba tey Dakar Actu di béral ni kat am na lu si alaxam bu nu waxal si ñoom benn anonymat dëggal na ko ni kat loolee sax nag doon na lu wér ndaxte si 24 janvier bi armée bi amee foofu ay jafe-jafe te way fipp yi amaloon attaque ci contingent sénégalais bu nekkoon Gambie te nag ñoo ñëpp Salif Sadio yi defoon ko donte ñàkkoon nañ sax juróomi bakkan ak tamit ay blessé yu bari ak juróom-ñaar yu ñu téye woon otage ba léegi kenn ñëwul foofu ma saw leen bu nu sukkandikoo nag ci Dakar ak ci jàmbaar yooyu nag bëgg nañu ku leen gestu nag jaajëfal leen sax ndaxte waa góor dina tax gën a yokk góorgóorlu